أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين والقاد ذكر الأمين لكلكلي وجسدي أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين والقاد ذكر الأمين لكلكلي وجسدي ناجيت ثلاث العزيم بالوب ما دور النزيم ولي كان بعزيم وسالني عن سديد نا بتوحيد الأحد قلبي رب المنتهى ولم يكن ci people ak mbon talibé yi wane nañu seenu pas-pas ci liggéeyub Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké bi di tool yi nga xam ne nag ñu ngi tolloon ci góob dugub bi ci ñaari gox yi nag xëy nañu ci gaaw gi doon nag amal liggéey bi ci teewaayu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk liggéey bi taalibe yi nag ni ñoom mbégte képp lañu am ci jëfee ndigal lu bawoo ci mu Mouhamadul Mountakha Mbacké liggéey bi nag ñu tàmbali ko bi juróom-ñeenti waxtu ci suba jote laata ñu naan tàkku sànn jeexal nañu liggéey bi. وليقول في الخراب ربي يمان

allahu rabbul alamin salla ala alhadi alamin bil malai al mukammalin aruhina wa jasadi allahu rabbul alamin salla ala alhadi alamin bil malai al mukammalin aruhina wa jasadi

ci wàllum bernde yi daayra Ëxlu Tarbiya doon ci taxawu taalibe yi nga xam ne nekkoon nañu ci tool yi di amal seenub liggéey ci wàll boobu nag lépp loo xam ne dañu ko yittewoo jëm ci wàllum xewlu daayra bi waajal nañu ko ngir nag bu ñu noppee liggéey bi rekk taalibe yi mën a xewlu أملك منه شكره ولي قال ذكره ولسواي مكره ساق وسان قلبي لله حمدي بالشكور وإنه الهادي شكور وسانني عن النكير سيرا ñenti tool ya ca tipp ak benn ba féete ca mbul taalibe yi taxawu ko ci benn bés lii nag tax ba jëwriñ ki nga xam ni moom moo jiite woon liggéey bi rafetlu bu baax taxawaay bii nga xam ne taalibe yi amal nañu ko ci mu jàpp ne it ak tawfeex képp la leen di jural ci saa su ne ñuy jëfee ndigal lu bawoo ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké جانبات الصخب إلى سوى قلب الفراق لم يلم منطق الفراق ولا سري سترات وسالني عن الخطيب لسان ذكري بالسكوت على إلهي السكوت وليس ينون النكير ولست بالمتهم إلي قال مالكي مساسح الهوالك أنير قلب سالك بساهل ومبهم ثبت في قدمي بالمصطفى المقدم وسالني عن ندمي وجاربات سنتي

sëriñ Mamor Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moom nag moo doon jottali kàdduk sëriñ bi ci jotaay bi ci bi nga xamee ne nag taalibe yi noppi nañu liggéey bi ñu doon amal kàddu yi nag la ci jiitu bokk na ci ak cant gu baax goo xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke jagleel na ko taalibe yi nga xam ne bawoo nañu ci ay barab yu wuutee ngir nag ñëw taxawu liggéey bi waaye nag ak soññe gu yaatu goo xam ne jagleel na leen ko ci liggéeyub Serigne tubaab bi nga xam ne moom la ñu dëgmal laataa nag Serigne Mamor Mbacke di jottali ñaan yu am solo yi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke jagleel na ko mboolem taalibe yi لمن له سيدا ما القلب مني أسعى مع رداء القدم عذب ربي المراد لغير ذاتي القرار لم يمني من يقتاد بجلد وكرم لم يلهني منازع الفهم بركة المصفين مجلة لمدحه وكل ما لم ينفه نفى لغير همم يقود لي إلى الجنان من لي نور الجنان بسرا وسفا بالجنان بلا أزل أو همم هلك للحق المبين فيما لخلقه يمين وفي الذي ليس يمين بغير ذات ملهم مدد لله

بالأمين والأمين فزت بلا تعظم لم يغني كفر ولا فسق ولا سن ولا ما يملك التقول والله على قلمي صان جنابي المقيم لم تنه دري الروح وليقول غير قول من زاد من عن ظلمي يذكر ذا العرش العظيم ci bésub gaaw bi taalibe yi gënees nañuy feddali seeni laxasaay ak seenu kóllëre yi jëmale ci ki fi toogal Serigne Touba Xaadim Rasul di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké lii nag ñoom ñu jàpp ni taalibe bu ne dafa bokk ci taxawaay gi nga xam ne war na ko amal taxit ñuy gën di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalifa général kullu mu yàgg fi lool te ànd ak wér. يريم بزمن ليس يريم وليغوت معروف علما بلا تعلم كرامتي خط يدي في خدمة المؤيد وكان لي بالأفيد على رمول الكرم seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñuy publication mën ngeen abonné Al TV te bu leen fàtte laal cloche bi